Mbacke ahlu café sëtu Cheikh Massamba waaye bi nu ñëwee euh, ñoo ngi nii tubaarikàlla macha allah ci machine bi machine bi nga xamante ni si tubaarikàlla macha allah defe naa café ak meew ak bisaab ak lépp lay defar sëriñ bi yow ñu fekk la fi yow noo tudd. waaw man euh, daam café laa tudd daam café. waaw ginnaaw bi ma leen nuyoo maa ngi euh, santaat si Tuubaa bu baax di jaajëfal Cheikh baa Fall Mbamoul Dine di ñaan Cheikh Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi lool te wér ak soxna mu di sëñ Modou Faty Xel ibnu sëriñ Massamba ñu ngi leen di jaaraat bu baax yéen. Dame Café lan moo waral turu Dame Café gi. waaw turu Dame Café gi nag euh, soxna maam Issa Mbacke ku na xam na ni kafe gi dafa bawoo ci sëriñ Touba jaar ci soxna Aysatu Gaawaan moom sëriñ Touba soxna Aysatu Gaawaan Mbacke yar soxna maam Issa Mbacke jox ko ay mbóot ak i baatin ci kafe gi mu mu mu koy mu koy mu koy joxe di ci faj ay aajo man nag maa nekk ndongo li nga xam ne si ni maa koy segg maa ko mbokk taalibe yi ngeen nekk sama ginnaaw. te segg bi ba may am fukki at laa ko door léegi xañ na nag moo waral ba loolu ñu nampatal ba war turu daam café yu judd ci. waaw bi nu ñëwee dañ fee fekk ngeen taxaw ci machine boo xam ni man defe naa machine bi man maa ngi koy doo gis machine bi moom mooy machine la. waaw machine bi euh, jëruñ Atou Diagne suñu Atou hospital xiya ñoom ñoo ko moom waaye nag euh, bis bi koor gi bu jubsee wala bu ñëwee si mun Mamadou Mountakha sonoom isa nag mooy daan nekk fii ci kër gi moom kese. avant Sëñ Muntaxa di nekk xalifa waaye nag bi mu ñëwee dafa dundal la Sëñ Tuubaa daan def njaareem daf ne ci kër gi lay woore ànd koog waaye su tarxee ci njàngum xasida day waaye nag woo sono maam Isa Mbàkke ci bernde at nag jël machine bi machine bi nga xam ne lépp lay defal day michu day café day meew day ataaya lépp xeetu bernde boo xam ci yoon wi rek machine bi da koy def léegi nag mu mu mu farale ko ñu ci ñu ciy liggéeyal Sëñ Tuubaa machine bi nag maanaam lu jafe la ndax armée France ñoo ko ñoo ko ñoo ko jox sëñ suñu aatu mu rafaate la ko seulement Issa Mbacke ñu ciy ma ci koor gi. Mhm. mais café ma jàpp ni saaf dëbbu daal di segg suukar daal di jox jaam ñi daa mel ni moo gën a yomb machine bi de machine bi maa ndax doo leen ci am ay jafe-jafe ci ci côté boobu noonu. maanaam machine bi euh, róoram du saaf du dëbbu. maanaam am nañ machine spéciale boo xam ne mooy mooy saaf café gi moo koy wal moo koy dëbb ba kafe gi nekk poudre léegi nag fi ñëwee fii ci la ñuy ci machine bi baxal ndox lay def ah segg ak et cetera et cetera mais saaf ak am nañ machine yu yu yu yoo xam ne si ni café gi day day day day nekk café goo xam ne du am rax café doon café naturel café murit doogu ñëw fi nag poudre lay nekk bi ñëw fi ñu dog koo taxawu taxawaay yi ñu koy amal waaye machine bi moom xeet liggéey lay def segg tàngal ndox ak xeet yu mel noonu. defar bisaab yeeg euh, xeet yi lu mel ni jinjeer yeeg yooyu noonu sëriñ bi yow mi nga xam ne yow leen fekk euh, ñu ngi lay ziare bu baax ta di lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay bu baax di la ziare te di la ndokkeel bu baax ci weeru màgg yi nga xam ne moom lañ nekk waaye di la wax ne ñun nit euh, mbooloo lañ moo xamante ne nii ñooy waa Hizbut Tarqiyyah suñu borom dañoo boole lëkkale ñoo ko soxna maa yi ndax weeru koor gi moo tax ñu àndandoo liggéey bi comme sëriñ bee ko woote. bi ñu ñëwee seq liggéey bi nga xam ne jëm ci wàllu café gi ak collation bi ñun ñoo ko seq ñoom bi ñu ñëwee machine bee ngeen di gis noonu daara Hizbut Tarqiyyah la jógee ñoo ko fi indi bi ñu comme ñoo seq liggéey bi te ñoom ñëpp xamee na leen ci wàllu café moo tax ñu bàyyi leen wàllu café gi ñu nekk ci machine ba waaye machine ba la def maanaam du café rek la liggéey lépp café ci gën a tuuti ndax tey bu la neexoon boo amoon ay xar mën ko cee miche soo amoon ay beñe yooyu lakk mën nga ko cee def soo bëggoon omelette sur la plage lépp mën nga ko cee def kon du boo xamante ne mi ngi mi ci biir machine café moo gën a euh, tuuti ci liñ ci def bu dee fii nga ñëw tamit ñun ñoo yor ci ñun nga xam ne moo jëm ci wàllu collation nga xam ne saa suñu xëyee lañ defar ñetti bërigo yoo xam ne benn bi citron lay doon muy limon bi ci des doon tamarin beneen bi des doon bisaab bu xonq léeg-léeg ñu defaraale tam bisaab bu weex léeg-léeg ñu defar buy wala jinjeer ndax day vari ay variété lay doon rek du doon chaque jour loo xam ne benn qualité lay doon xam ne saa bu ñu ñëwee gis nga ko ni ngeen ko gisee nii saa su ne waa kër gi li ne ci kër gi yëpp li ñuy war a ndogoo fii lañ koy jëlee mbaar mi ngeen jàkkaarloo tamit dañ fiy def mbaar moo xam ne dañ fiy ndogoo li ñuy ndogoo lañ koy tànqee mu dem foofu noonu jërëjëf saa su nekk moom li moom day am saa su nekk. waaw chaque jour saa bis bi ba bis ba teroo ba léegi nii chaque jour moom day am ndax tey itam chaque jour dañ koy boole vingt saako glace yoo xam ne dafa am usine boo xam ne fa lañ koy commandé di ko jëlee di ko nga xam ne glace googu bu ñëwee bërigo yi ngeen tiim ci lañ koy seral ndox mi ñuy naan tamit ci lañ koy seral pour nit ñi a am lu sedd lu ñu naan ndax ku woor ba ngoon da soxla lu sedd. yow yaay kan ci jëwriñ yi. Euh, man de ndongo laa rek suñuy wax yor wàllu collation waa Hizbut Tarqiyyah soppee xarit yi mbokk yi am di jàmm yi comme ni leen koy waxee woon rek saa su nekk bi ci weeru koor ba léegi saa nekk ni koy defee rek noonu koy defee tey nag ñu ñëwoon fii kër Soxna Maam Isa Mbàkke Ahlu euh, Café fekk ko kër Sëñ Tuubaa Cheikhul Khadim euh, kër gi nga xamante ni si moom moo janook jumaa ji na si ñoo ngi lay ziare bu baax te lay nuyu te lay masaw coono tey euh, bëgg nga wax ak askan wi rek nuyu leen ñu dugg ci question yi ah, bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di santaat Sëriñ Tuubaa Mbàkke mi sunu yaakaar tey ak di yeesal bu baax sunu njaboot ci ma Masamba mi sunu buntu ci Sëriñ Tuubaa di wax nuyoo bi jullit ak moromam jullitam muy asalaamaaleykum wa rahmatullah sama maam is axlu kafe man soxna su gaawaan Mbàkke bintu Cheikh Ahmad Bamba moo loon kafe gi mu yaroo fa nag te moom kafe ci laa doon faj aajo di faj ay soxla di ci def lépp lu muy defal doomu aadama ci café la koy def te sëñ Tuubaa bi mu ñëwee moom la rafatale kafe gi man nag mu joxoon ma secret café gi ci ba may ndaw fa laa nekkoon ba may am juróom-ñeenti at moo tax bi ñu màggee ñu daayira bi nag i daayira ma Maam Jaara la fédération daayira Maam Jaara waaye fédération bi lañ tuddee ahlu café Touba waaw ndogu yi nag kër sëñ Touba yaatu na yaatu na ndax buñ ko defee fii ci kër sëñ Touba gi ci jàkkaarloog jumaa ci dinañ ko def fële ci yokk jumaa ba jàkkaar dend ak kër sëñ Saliou dinañ ko def ci kër sëñ Touba gi la ci Daaru Marnaan muy ñetti béréb yooy ak dinañ def ay ndog fële tamit ci kër ma sëti sëñ Massamba yi ci kër sëñ Mahmadane foofu tamit ñooy organiser ndog yi ñeenti béréb yooyu daal dinañ fa def ay ndog waaw am nañ ay daara yi alxuraan yoo xam ne ko jële woon ci ndigalu Cheikh Ahmadou Mountakha ci maam daara yi nga xam ne demaguñ woon ñu laajoon ko ndigal leen ay daara ba ñu ci joxe ndigal it ci lu mat 14 daara fukki daara ñeent yoo xam ne lu mat ñaari junni maam jaara fi may waxee yow ñu ngi ciy jànge ñu nekk Touba ak ci région yi département yi am nañ tamit daayira yoo xam ne ay kuréeli xasida ay kuréel 1 kuréel 2 kuréel 3 ba kuréel 4 maanaam fu daayira bi am nag kéré nañ fa ak kuréel goo xam dañuy jàng xasida yi daara ju ci nekk dañ ko tuddee kenn ci waa kër sëñ Touba ndax tudd nañ soxna Asukaawan tuddee soxna Issa Dieye waajuru sëñ Massamba tuddee soxna Awa Boussa waajur sëñ Fallou tuddee soxna Aminta Boussa waajur sëñ Abdou Khadir tuddee soxna Kunta Mbacke mu sëriñ Fallou tuddee maam Anta Ndiaye tuddee maam Maharam Mbacke tuddee soxna Momi Mbacke noonu daal lañ ko jàppoo rek daara yi mat fukki daara ak ñeent ak maam Anta Ndiaye Mbacke tamit tudd nañ ko mat na fukki daara ak ñeent yoo xam ne ñu ngi yëpp ñu ngi fay jàng ndax ne ñoom bëgguñu kenn ku dul sëñ Tuubaa boo dee yëngu ci sëñ bi rek ñu bëgg la kuñ ne la dama laa bëgg rek lañ lay ndax lañ bëgg soo dee sëñ bi di ci gont te boole ci benn caaxaan ñu bëgg la man liñ may tudde ci ay bis du xaaj damay dem rek damay wucci rek ku ma tudde dinaa nangu ngir jëm sëñ Tuubaa ci féeri bi la boobu bi ñuy dem Sarsara bu ñuy jéggi la Sénégal boobu la mooy kuréel tukki bi nga xam ne dañuy dem Sarsara fa Sëriñ Tuubaa gisee woon ak Baaba fa ko yonent bi sallallahu alayhi wa feeña woon jox ko wérdu mahus minallah wasilati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam foofu la dem at mu maa fay dem at dem maagale di defar béréb ba Sëriñ Tuubaa doon jullee muy jumaa ja defar nañ ko ba mu tamit ñu ngi juillet lañ ko jàpp le 11 juillet lañ ko jàpp le 6 juillet lañ war a départ dem Mauritanie te Sarsar foofu Serigne Touba nekkoon. man moom Serigne Touba ma fa joxoon liggéey loo ma fa ma booleeg naar yi man naar yëpp samay xarit lañ. mën nañ ba ñoom ñëpp Aïcha lañ may wooyee suñ ma gisee dañ naan wax xayart loolu lépp nag jëmmi Serigne Touba naar yi ñoom dañoo bëgg Serigne Touba ndax ñoom dañoo xam Serigne bi ndax Serigne bi béréb boobu def na fa diirub ñetti at ak lu topp foofu ci Sarsar bënn daymaan yëpp ay murid lañ woon Serigne Touba lañ jëpp la woon kon bari foofu ñoom dañoo xam sëriñ bi dégg arab classique bi Serigne Touba bind ñu xam li Serigne Touba di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax bu ñu gisee koo xam bokk na ci Serigne Touba dañ koy sama digganteeg naa waaw mën naa cee wax ndax ma Massamba moom daanaka ba muy ganee àdduna boobu Maam Mor Anta Sali làqu na sëñ Tuubaa ko jaa tudd moo ko jàngal moo ko yar moo ko jàngal mboolem xeeti xam yëpp ba xëy samp ko kon sëñ Massamba mel nañ ni ni bi sallallahu alayhi wa sallam ni Seydina Aliou taxawoon ci kër yonent bi ndax Seydina Aliou yonent bee ko yar moo ko jàngal ko sampal kër laata muy woote ak yonent kon euh, sëñ Massamba noonu la taxawee ci kër Serigne Touba ndax Euh, nee na man maay dëkkub xam-xam bi yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa nee na man maay man maay dëkkub xam-xam waa Alioune mooy buntu bi suñ ma sàmm tam Sëriñ Tuubaa wax na ko loolu man maay dëkkub xam-xam waaye ma sàmm mooy charge man man Abdou Salam bés bu set maa man du ma jëkk ci programme man foo ma gis at mi ñetti téeméeri bés yëpp dama koy sant Sëriñ Tuubaa kon man foo ma gis maa ngi sant Sëriñ Tuubaa bu ma ko sant sama kër sant ko ci kër Sëriñ Tuubaa man maa ngi ci jumaa wala nit woo ñu dem sant Sëriñ Tuubaa wala ma dem bitum réew ma dem France wala Espagne wala États-Unis ndax ñoom surna na ya fay am yëpp damaa jaayanteeg ñoom 46 kilos yi nga xam moom laa am ci avion bi tous dama koy yóbbu def ko addee Sëñ Tuubaa ci café surna xasida yi ci àdduna yëpp dama cey dem yóbbu leen café te su ma demee sama mbooloo ñoo koy sekk di ko seddale waaw danoo fekk euh, ci biti sànq nii ñu ngi ko doon jël euh, benn machine boo xamante ne si machine boobu moom machine lan la ndax ñoo ngi gis ñuy jëri café gi ak di jëri yeneen xeeti mm, lépp loo xamante ne si wàllu berne la rek machine boobu moom ban machine la machine boobu moom mooy segg café gi ci courant lay marché day baxal ndox mi ci ay minutes nga xam man nañ cee seg ci lu gàtt une heure de temps mën nañ cee segg lu mat ñetti cent litres moo tax isu tarxee ñoo ma ko jox bu dara xewee ci kësantuwaay ñoo koy indi oto la boo xam dañ koy démonter garé ko fi ñu liggéey ci buñ paree ñu delloo ko ñu ne am nañ ci benn commandé nañ ko xam naa dina ñëw balaa yàgg commandé nañ ko France incha allah xanaa am na suñu mbokkum taalibe bi ko doon wax ci rajo fan yi nee na sëñ Tuubaa loo mus mus mënoo koo nax loo daf dafi du nax waaw sëñ Tuubaa nag fawut fëloot te sëñ Tuubaa dafa doon ku ñu war a liggéeyal nag te tollub lislaam dafa yaatu lool te sëñ Tuubaa nee na soo ma defalee loo man ma defal loo mënut soo ma defalee loo mënut ma defal lu la comb kon nuñ gaawtu liggéeyal sëñ Tuubaa ndax mu fàññe lu ñu comb ñun nag sëriñ bi lii mënu fay danoo comb ñoo ngi ko ci sant bu baax di góorgóorlu di ñaan yàlla nit ñi ñu góorgóorlu ci jaamu yàlla ndax liggéeyal Sëriñ Tuubaa mi ngi tàmbalee ci tàggat say cër ci ak jaamu yàlla ak fonk sa ñaari waajur foofu la liggéeyal Sëriñ Tuubaa tàmbalee kon nañ góorgóorlu bu baax ci jaamu yàlla liggéeyal Sëriñ Tuubaa di leen dénk la Sëriñ Tuubaa dénkoon mag ña liggéey ak jaamu yàlla ak muñ ci lool rek lañ ne ndax Sëriñ Tuubaa fa wut fa la wut ku koy liggéeyal danga war a am la am fayda yiw yaata tabe te yaru te am fayda ci sa bopp noonu la ñuy liggéeyal Sëriñ Tuubaa jërëjëf soxna soxna maa Isa Mbacke ahlu kafe mu mel ni tey ñooy woon fii kër soxna maa Isa Mbacke ahlu kafe kër sëñ Touba gi euh, kaddu yooyu yéen a ko dégg am na solo lool soxna si lan mooy sa kaddu gu mujj ñu tàggatoo. ah di sant yàlla bu baax ci boole gum ñu sëriñ Touba boole ci boppam sant nañ yàlla bi ñu bokkee ci sëriñ bi ndax fii yàgg nañ ko fee def ay ati at teewoon nañ fi daaw teewaat fi yan nañ fi teewaat di wér di ñaan ñaan sëñ Amadou Muntaxa mu yàgg fi loo war te wér ci teraanga ji mu ñu defal ñu ànd ko suñu mbokk tarxiya yi ci ndog yi nii mu ñu ko yaatalee fekk suñu si yaatalal ñu ko ba àdduna bépp xañ ci ndaxte lu mu gàtt gàtt rek ñetti junni nit dinañ fi ndogoo te loolu lépp ci mbaaxam la dañ koy ñaana mu yàgg fi loolu tamit di ñaan ñu yàgg ko ànd ak moom ba liggéey bi sotti colet kenn bañ a wopp kenn bañ a manqué